à midi et treize heures ma wax ci RFM ma ne état bi warul yox yox yi si les populations ne se sentent plus en sécurité duñ gëmati état ti booba xale yaa ngi taal de Auchan à Auchan di taal di wër rek di yàq mhm. man ne l'état doit faire face quitte à sortir l'armée nationale ndax ñu ngi les biens publics et les biens privés te état bu demee ba mënatul garantir la sécurité publique état amatul kon ma ne solution bi mooy lan. mooy lan qu'est-ce qu'il faut mooy le président Macky Sall wax. lan. nii. Mhm. ce qui s'est passé ne va plus se reproduire. l'État fera face. c'est intolérable et inacceptable moo tax jël moyens yu doy renforcer la police et la gendarmerie ñu occuper les points stratégiques bandi yi bu jógee pour taal dëkk bi ñu jàlloog ñoom. homme politique yi bëgg ay deuxième vague ak troisième vague dévastatrice ñu mettre leen hors d'état de nuire ku jóg pour marche pour taal pour décrédibiliser les institutions mu jox la benn exemple ñu ne yoon dafa jeng nañ def marche. Mhm. ndax dañoo bàyyi Thier Amadou Diallo. oui téye kilifa. ba mhm. bëgg dafa taxaw seetlu kiñ ni moo wuruj pour jël xaalisu Thierno. pour dëkk ko visa te ñu ba su visa ak Thierno bi joxe xaalisam pour visa yi ñoom ñaar ñoo war a bokk àtte kii ñëw dugg ci gaale loo cay fay quatre cent mille pour dem Barcelone ak borom kaar bi encaissé quatre cent mille borom borom gaal gi criminel bi leen war a yóbbu di leen rey ci yoon bi mën naa ñu dee ci yoon bi kuñ ci war a arrêté du borom gaal gi noonu la mel Thier ñu jàpp ko par erreur may ma ñu jàpp may ñëw ko ci film bi. atte guñ ko données personnelles. mani nee ne nee ne film bi atte guñ ko arrêté wuñ ci kenn dañoo jéem a gëmloo Sénégalais yi dañ jàppale Thierno ci affaire film bi da mani. mani parce que Thierno a parlé. mani suba taana parole la. Mmh. Thierno a parlé il faut nous dire qui a fait fuiter les les vidéos. yow yaay avocat yow yaay avocat yéen ñëpp dañu gëmloo ni. waaw dañ jàpp Thierno. ndax dañ ko topp xëy na lim génne ay image ku wax loolu waxoo dëgg ndax. plainte boobu ba léegi ñu ci yoon. il a pas été arrêté pour ça may ma ma ñëw. Mm-hmm. pour leeral foofu Sénégalais yi aussi. Thierno dañu ko complice nga ki nga jox sa xaalis complice am nga. yow ki la nax ñu ne complice ki la nax lekk sa xaalis ñu bàyyi ki ñu nax. ndax maa ko plaidé le le mardi 30 mars 30 novembre euh, à à 10 heures à la chambre d'accusation ni leen yéen da ngeen def moom la jël xaalisam ñu jàppandoo ko tëj ak ki jël xaalisam te jox ko visa. maître Ba non non non non. day gën a gudd si. après parce que su pour wax ci cas bi man dama koy laaj. parlons droit ban sañ-sañ la ñu am pour maintenir kilifa en prison yaa ma gën a xam loyauté de la preuve ak légalité de la preuve dégluwuma la parce que film bi ñu filmé bu fekkee dañoo filmé nit te yëgu ko fatal say non parce que bëggoo dégg la tée bi ñu téye kilifa teguñu ko fenn parlons droit il y a problème de la loyauté de la preuve et de la légalité de la preuve kilifa ne doit pas passer vingt quatre heures en prison loolooy dëgg léegi nag ku bëggul dégg dégg bu la neexee nga saaj say nopp bu ma bu la neexee saajal say nopp saaj ko ba suba saa yoo ko dindee dinaa ko wax man maa am sama temps voilà parlons droit la le problème de la loyauté de la preuve et de la légalité quand je prenais le droit devant les juges de la chambre d'accusation nga demandé woon naa liberté provisoire juge bi bañ ñoom kii dafa demandé liberté provisoire juge bi ñoom njëkk a appel dañ ko jugé ñu bàyyi Simon ndax nee dafa feebar. Mhm. comme ni ñu bàyyi woon Bougazelli bi te 7 mois ndax dafa feebar. Bougazelli moom ne pas du tout. Simon deful 7 mois de. Bougazelli moom ne pas du tout. Simon est-ce def na un mois sax ñu bàyyi ko kenn coowul waaye ki def 7 mois ñu bàyyi ko kenn nangu ko nangu ko lool. Oh, kooku moom seet doon da léegi bi ma ñëwee man dafa appel fekk ñu bàyyi Simon mi nga xam ni. Mhm. dafa jël xaalisu Thierno jox ko passeport français Thierno ko jëlal sa passeport delloo ma sama xaalis mu bañ ñoom ñaar ñëpp Thierno nekk partie civile ci dossier bi maa bind lettre de constitution de partie civile déposé ko ci dossier bi nu mën a jàppee partie civile ak inculpé bi tëj dama ko plaidé chambre d'accusation wan leen ni erreur am na ndax ki ñu jàpp Thierno Amadou Diallo lu ñu koy toppee ngeen ne complice la kon ku ñu nax ko dee complice ga ku ñu nax ku dégg nga joxe say million ñëpp teg seen bët complice ga ñu ñu bàyyi ko bu génn bi mu génnee avocat moo ko plaidé wane on est kii wa kenn war ko tëj mais moo ne ba ki joxe ay million am mm-hmm. nu may foofu rek ki jël ay millions maître ak ki jël mais c'est un complot d'État. mais nee na d'État dama ni a c'est un complot d'État tout ça ça a été cousu de fil blanc pour tomber sama kilifa loolu daan nga du c'est un complot d'État il faut le dire. non c'est un complot d'État. c'est un complot d'État. waxoo parce que amul preuve. c'est un j'ai dit que c'est un complot d'État. mais amuloo mais par rapport ak vidéo yu fuité. yow mën nañ la ci woo nañ ma ci woo monsieur le ministre nañ ma ci woo. nii daal terminé nii daal terminé nu may ah. terminé wax. nañ ma ci woo. dama dama dama demandé l'impossible bu ma demandé l'impossible. non maître joxaat nañ la parole pour ku wax fi lu arrangé wul may bañ a tudd mu dagg la bàyyi ma expliqué ma expliqué man duma ku ñuy ku ñuy xam nga rek may ma ko kenn. mais sa temps de parole léegi mu jeex maître. waaw ah, da koy dagg ba réel après bu jeex amul problème. waxal yow la ñuy déglu. bu la neex ba jox la bi. dama ni da ngeen foogoon ni même yow nee naa sa. Ah. dama lay wan dama lay wan accusé de da foogoon ni xëy na cër dañ ko jàppoon ci leneen lu dul affaire affaire xaalis bi mu bi mu joxoon kilifa kilifa tirande ko xaalis boobu ñu ne pourquoi ko ñuy bàyyi ceer mais ni ceer dafa def leneen wala dañ ko topp leneen comme film yi kenn topp ko ci film yi. kenn jàpp ko ci film yi wane kenn jàpp ko ci vidéo yi ba ñaan ba jàpp nañ ci bàyyi kii dañuy jéem a jaxase bopp nit ñi alors que même infraction bi bi kilifa def ak Simon ci lañ ko bëgg a tëj moom ti moom moom moom mooy victime ñu ne nañ ko bàyyi en catimini ma di ci tontu keroog maa plaidé man le mardi 30 novembre à 10 heures ñu dem délibéré à midi y avait huit affaires inscrites au rôle bi ma plaidé ñu ne ma délibéré à midi dans deux heures de temps ñoom bu ñuy dem chambre d'accusation bu ñuy demandé liberté provisoire presse bi yëpp lañ ko yëgal naan kilifa a la liberté provisoire si moo a demandé mais maître jusqu'où ira cette histoire. parce que oui parce que yaa ngi wax ni euh, waxul peut-être lii moo tax ñu arrêté ko euh, alors euh, la question fondamentale c'est justement peut-être ñuy filmer cette personne parce qu'on parle de protection de données personnelles d'une autre part qui a fait fuiter ces ces ces ces vidéos donc jusqu'où ira cette histoire. entre voilà voilà ci laa jëm si woon mais da nga maa dagg damaa dégg ñoom ñu développé benn thèse pour toj bopp sénégalais yi dañoo topp Thierno dañ koo téye ndax dafa génne ay vidéo yu wone ay kilifa ak ay simon léegi ñu bàyyi ko ci def na faute boobu pour ñoom téye fa kilifa moom mi nga xam ne dafa jël xaalisam xam nga man moo tax ma ne yow sax xëy na loolu nga foogoon ndax loolu lañ gëm a gëmloo nit ñi loolu laa la bëggoon a wax ñu bëri dañu foogoon ni dañoo topp kilifa pour leneen comme lu mel ni ay dañoo topp cerno ci leneen lu bokkul ak xaalisam bi ñu comme lu mel ni vidéo yi ñu bàyyi ko nag léegi ndax vidéo yi xëy na ba pare téye kilifa loolu ñu bëggoon a nit ñi. Mhm. ma ne axtum attention masuñu ko topp ci affaire vidéo masuñu ko jàpp ci affaire bi entendre nañ ko bi mu nekkee kaso ci affaire vidéo yi. dama bëgg Sénégal yëpp xam loolu. il n'a pas été accusé de vol. kilifa rek accusation boobu te perte ba tëdd na deux mois la woon bu yàgg. kon bu ñu jaxasee carte nit ñi. tëdd na deux mois yi may ñu ko ci un jour. s'il vous jour. dafa tëdd deux mois ba jeex tàkk avant muy jeex vidéo yi di circuler le procureur.